الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وخير خدمه وسلم تسليما وصرح بها صدور من تعلموا صرحا به لا تقترب الظلم سدد لساني نور جناني سفي عماني وزد براهي وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته téléspectateurs yi nga xam ne yéenay ànd ak seen télévision Thiès TV bu fekkee tey nag ñu ngi ñëw ci seen émission bu mag boobu ñu tudd ëttu xaside yi tey ñu ñëw nag fii ci mm, cité Senghor ci robinet Khadim waaye fekk fii daara joo xam ni daara ju am taxawaay la daara joo xam ni ku xam ku am réew ay résultat la maanaam ay initiatives yoo xam ne maanaam réalisé na ko ci li nga xam ne mooy wàllu njàng mi. waaye tamit réaliser ko ci tamit li nga xam ni mooy wàllu spiritualité spiritualité loolu tey ñoom lañu fekk si fii tey mooy daara ji ñu tuddee daara yi Seydina Omar euh, ñoom lañ fekk si fii tey Seydina Omar Jaxate euh, ci fii ci daara ji waaye nag euh, feggoo fi ak ñenn ñi nga xam ne mooy jëwriñ ji man ngànk liggéey bi ngir ñu waxtaanee li nga xam ne mooy bërëb bi nga xam ne mooy bërëb jii di ñuy jànge daara ji alquran bi waaye tamit ñoo am bis bu mag bu màgg boo xam ni dañ ko dégmal waaye lu jiitu loolu dañuy ànd ak ki nga xam ne mooy Baba Diallo waaye ki nga xam tamit mooy sëñ Noxo moom it euh, nekk ci kenn ci parent d'élèves yi waaye tamit di ko taxawu daara ji waaye tamit am na ci yeneen jëwriñ ko demee nii sëñ sëñ Saliou Sarr incha allahu rabi moom it nga xam ne mooy jëwriñu liggéey bi ak ñeneen ñi nga xam ne ñëpp ñu ngànk liggéey bi incha allahu rabi loolu la ñu fas yéene xam naa ñu jox baaba mu daal di nuyu incha allahu ñu daal di dugg nag ci li nga xam ne mooy bi nga xam ne moo ñu tax billahi min asheytaani rajim bismillahi arrahmani rahim wa inni auizuha bika wa zurriyataha min asheytaani arrajim rabbi auzu bika min hamazati shayatin wa auzu bika rabbi an yaxduruun inna alhamdulillah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 ورضي الله عن شيخنا وقدوتنا شيخنا شيخ أحمد بن خادم الرسول السلام عليكم ورحمة الله نجي لندي نيو دي لين زيارة دي جيتال سي نيو بي سي نيو كليفة ينيو بوكال جوتاي بي وسي ملني سي نيو باي باي نخو اك سي نيو نيجاي سي نيو سرين دي سرين مومبر دو سي جين دي لين نيانا سي نيو بروم دولي لين توفيق بو باخ di nuyu mboolem téléspectateur u Thiès TV ak ñi nga xamante ni faral di andek yen yéen jotaay bu tedd bi di ëttu xasida di leen jaajëfal bu baax si ñëw bi ngeen ñëw fekk si ñu fasi si daara ji fas yéene sëkk ak ñun ay waxtaan yu aju si daara ji waaye itam ay waxtaan yu aju si liggéeyu daara ji ak doxalinu daara ji waaye itam ay waxtaan yu aju si bis bi nga xamante mom moom la ñu dëgmal muy bis bu màgg bu ñuy faral di amal at bu ne di conférence religieuse bi ñuy amal saa su nekk kon point yooyu yëpp war nañ si waxtaan après incha allah xanaa di ziyaara bu baax tey jox wàccuwaayam ak dayo bi ko suñu borom jox muy suñu sëriñ suñu wasila ki nga xamante ni moo ñu nàmpantal si lii ñu nekk yëpp muy Seydina Omar Jaxate ku tedd ki di ko ñaanal suñu borom yàggal ko fi lool te wéral ko lool itam ba mboolem naal yi mu naal ngir liggéeyal si lislaam jaare ko ci alquranul karim ju tedd ji suñu borom defal ko ci lu kawé ak njortam mu anda ko mboolem mbokki talibé yépp di jital ci ziar bi ci jotay bi suñu jëwrin serigne Saliou sar ak suñu jëwrinu soxna yi di soxna mam soxna Cheikh Ibra di ñaanal suñu borom gëna dëgëral bu baax kon serigne Dieng si nuyoo baa ngi noonu ñu euh, rek après ñu yatal jotay bi inshallah jërëjëfe sëñ Baba xam naa dañuy jox sëñ Noxo moom it mu daal di def nuyoom rek ñu daal di sóobu ci liggéey bi incha allahu rabbi salaamaaleykum wa rahmatullahi taala maa ngi leen di nuyu yéen ku ci nekk ci turam ak santam jërëjëf Seydina Omar jërëjëf Seydina Omar jërëjëf Seydina Omar yal na yàlla guddal fanam te wéral cëram yal na yàlla gën a defal ko lu mu bëgg ci daara ji ak fa mu bëgg a àgg yal na fa yàlla àggale ñu ngi leen di sant yéen ñëpp te di leen gërëm. di leen woo nag ci suñu bis bi ñu dëgmal muy le treize daara ji moom taxawaayam moom daanaka Seydina Omar mooy woote ndaje mi waaye mooy def lépp ren nag li ma gën a neex ci bis bi mooy def kaat dafa bëgg nee na sargal sama soxna yi waaw loolu moom conférence bu fi mos a jaar rek ragal naa ne bii mooy moo moo koy moo koy fooxee kon yàlla na ñu yàlla may fekke ak tal te yàlla defal ñu si lu kawe suñu jot lépp lu ñu si bëgg rek si lu baax yàlla nañ ko yàlla defal loolu daal laa ne woon naa ko si kii di leen sant yéen ñëpp nag di gërëm jërë ngeen jëf. Euh, jërëjëf euh, sëñ Noxo moom dafa bokk ci parents d'élèves waaye tamit di koo xam ne ku am taxawaay li ci daara ji xam naa sa sëñ Baba xam naa dañuy dugg na ci li nga xam ne maanaam mooy jataay bi ndax sunu borom ku ne xam na ne alquranu karim moom moo wax ni inna inna nazalna zikra wa inna lahu xaafidun kon du ñàkk jamono bu nekk yàlla sunu borom di tàggat ay nit yoo xam ni day roof ci ñoom seen dënn alquranu karim ngir ñu koy maytu man di saytu waaye tamit di ko man di dugal ci dënn gone yi ngir ñoom ñu man ko màgg ëllëg ñoom it ñu jëlaat li nga xam ne maanaam mooy relais bi joxaat ko ci yeneen di dënn kon li suñu borom ne maa ko wàccee te maa koy wattu wattu bi noonu lay demee rek génération par génération ku ne xam na ne alxuraan boobu mu wàcceeg léegi ay mat na ñaari junni at ak lu topp wala mu ëpp ko ñaari junni at ak ñeenti téeméer ak wala ak juróom booy xool euh, li koy manqué tuuti lay doon euh, boobaak léegi ñu xam ne saa su ne ñu ci jéem ay pexe teewul alxuraan gën di sax ci kaw suuf gën di neex nit ñi gën di am doole Seydina Omar ci taxawaayam daara ji mu taxawal ñu bëggoon xam daara ji ban période lañ ko taxawal ci bar jamono waaye tamit alxur daara ji ci yan taxawaay lañuy def ba dugg ci ak it ku ci bëgg a dugg fan ngay jaar mu mën a dugg ci daara ji. Euh, macha allah sëriñ Mamadou Sy fi nga ubbee jotaay bi am na solo lool. muy jëmmi daara ji ak alquranul karim ji nga xamante ni moom lañu fiy jàngale te loolu lépp suñu borom teg ko ci loxoy sëriñ bi wax nga nag lu am solo ci njëlbeen gi nee nga alquranul karim suñu borom ba mu ko wàccee yàgg na lool waaye boo gisee saa su nekk nooni diine yi ñu ngi fexe di ci jéem di fexe di ci wut ay yàq waaye ba tey suñu borom sottalul seen pexe yooyu mun a sotti loolu nag lenn moo ko waral muy aaya bi nga wax sànq إنا نحن nazzalna dhikra wa inna lahu la suñu borom ba mu wàccee alquranul karim wàcceewu ko rek bàyyi ko noonu waaye dafa wut ginnaaw yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wut ay jëmm yu mel ni ku tedd ki sayidina Omar Jaxate wàccee leen si kaw suuf jamono ju nekk mu wàccee ku mel ni Seydina Omar Jaxate si kaw suuf ngir mu mun a taxawu alquranul karim jooju du jëmmé borom bi subhanahu wa taala mom moy wacc ci kaw suuf di di jappal bopam di taxawul bopam alquran ji waye day défar ci bir minde fami ay jëm yu khememte euh, manam sen seen xemmamteef yëpp nek alquranul karim seen yitté jëpp nek ligéyal borom bi subhanahu wa taala mu waccé len ci jamono jo xamanteni fekk nañ ni alquran mu ngi bëgg a ci zahir ndax alquran mom euh, naka suñu borom bindé dara soppeeku ci kon tumbaranke bi dañuy wax mu ngi bëgg a ci zahir wa waye saa su loolu bëggee am rek da ngay gis période yi fi jaar yëpp dalé ko ba ci suñu mag ñu bax ñu ku ci melni Cheikh Ahmadou Bamba khadimur Rasoul mënoo tuddu alquran ta tuddo ko ku ci melni ni Seydil malik Malick tuddu alquran ta tuddo ko jëm yu mel non nak moy firi aya bi di inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu la hafizun xaafizun googu mooy jëmm yii ma tuddal ñom la suñu borom di xol buñu démé ba aduna bëgg jaxaso bañu bëgg fàtte alquran Quran, bëgg Fatih, message bu borom bi subhanahu wa taala jëm yu mel non la suñu borom di préparer préparer len si judd waye préparer len si askan waye it préparer len sa fañu wara wacc bo xolé lu si ëpp ci ñom daan nañ dem sax ba génn si euh, bërepp ya ñu won woon génn dem si all bi ndax dañoo fekk foofu euh, manam jamono ji yaqku aduna bi lëndam lool té ñom ñoo wara taxaw alquran kon faaw ñu am nuñu mel ba delu ci doora a jëmmal alquranul karim joju loolu nak suñu borom daf ko dogal si suñu jëm ji ñu suñu borom bolel muy ku tedd ki wa dafa bok si ñi nga xamanteni ah, dañoo taxaw ci kaw suuf seen yitte jëpp nek taxaw alquranul karim waye itam seen aduna seen dundu gep ñu jeexal ko ci alquranul karim ko xamanteni nenañ la amul salaire bu muy fayeeku fanen amul liggey bu mu bu mu juk yàq ci di ci wuti alal amul lenen si kaw aduna ludul sa bu xeye mu ngi xol naka lay def ba xar dënn ku mel ni sëñ baaba bii nga xamante def si moom alquran lu jafe la mu fexe ba xar dënnam dugal si alquranul karim loolu dong moo nekk yitteem kon jëmm yooyu ñoom ñooy firi baat bi nga wax muy inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu la xaafizun te it dañuy faral di wax ni nit yàlla dëgg bu la ko waxee na nga xool ni mu def ak alquran waaw bu ñu la nee diw nit yàlla la xoolal ni mu def ak alquran ndax si àdduna nii rek da ngay gis boo bëggee kenn jëmm doomu aadama comme yow ngay bëgg mu nekk borom teraanga waye di dap di dab lu ko neex di di gëna yokku ciofel gi nga am sa digënté ak moom day tax nga xol doomam jëm gëna bëgg sa kër ga nga fexé xarit moom di diko indil ay sërica loolu nak mo dal nit yalla ci alquran xam nañ suñu borom amul lu ko gënal alquran si kaw suuf nenañ ben sax benn baatu alquran mom mo gën yonent kon suñu borom amul lu ko gënal alquran si kaw suuf motax buñ la né diw way yalla la rek xolal ana naka la def ak alquran loolu nak ñu ci sant yalla bu baax ñun ñi nga xamanteni ñun la suñu borom euh, dimbali ñu amee tawféex bi ni mel waaye itam euh, li nga xamante ni moo jëm si taxawaay daara ji daara ji sëñ Mouhamad si euh, sëriñ bi mu ngi tàmbali liggéey bi depuis 2002 ku ne xam na ni 2002 ak léegi bu ñu koy xayma si ay at mu ngi bëgg a sori te amul benn bis bu mu toog ni bàyyi naa amul benn bis bu mu toog découragé xam nga daan na dal yonent yi yonent yi danga nga daan gis yonent bu suñu borom yónni mu mu dikk si xeet woo xamante ni daanaka waaw dañuy dëgër bopp lool dañuy dëgër bopp lool ba si biir këram lañ koy commencé xeex nga xam ni day muñ di muñ ba muñukaayam jeex si si si si si si muñu doomu aadama dem ba nga xamante ni nii mënatul mu abandonné te ab yonent la suñu borom ma ko yónni waaye xol leen jëmmi sëriñ bi te te yàlla na ko yàgg di def nag waa ñu ngi koy ñaanal suñu borom mu yàggal ko fi lool te wéral ko lool itam ba mu yàgg koo taxawee comme nii waaye da ngay xool ba mu tàmbalee 2002 ba léegi amul bis ñëw si daara ji gis xool si xar kanamam kii kat daa daa daa commencé découragé si liggéey bi waaw amul benn bis booy lu dul daal saa yoo dikkee yaa ngi gis ni mu ngi la gën a bëgg liggéey bi mu ngi ko gën a jox yitte ji mu ngi ko gën a jox tempsam waaw loolu rek ngay gis si kanamam saa soo dikkee lu yàggul dara lii nga xamante ni moom la ñuy waajal muy conférence bii nii soo ko fi bettee waxtu wii nii xam nga waxtu wii ku ne jàpp na ni sëriñ daara heure bii moom pare na si jàngale daa war a dem toog euh, dallu euh, noppal yaramam bo bo bété dugg ci kër gi yang ko fekk mu tok di di jangal xalé yi wa di fexé sa su nek mu def ci ñom euh, yaru diiné ak alquranul karim waye it euh, laytaayee ko lu jafe wa ndax euh, dañuy wax ni xam-xam kase doyul borom xam-xam yi sax ku su melni Serigne Touba Rasul da da na xam-xam gu bari te andu ak i teggin mu ngi melni mbambo sa fi téré rek wa kon. moom yàlla dimbali na ko ba mu réussir loo xamante ni nii daanaka euh, jafe na ñu bëri muy fexe ba nga am xam-xam fexe ba jëfeloo la ko fexe ba nga laytaaye ko ak teggin loolu sens boobu la daara ji am sëñ Mouhamed si waaw mu tënk ko nag si ñaari baat yi muy taalim ak tazkiya waaw euh, ak yar nit ki loo ko jàngal jàngal loo def si moom xam def si moom xam bu ko laytaayewul ay teggin rek xam-xam ba du ko jariñ ah day mujj nekk si moom ak musiba waaw moo tax daara ji si loolu lañ ko fondewee ginnaaw ba mu taxawee temb si képp ku fi yàlla dogal nga nekk fi ginnaaw ba mu taxawee temb si nga am xam-xam nu ko raw la taxawee temb ngir nga laytaaye kook ay teggin waaw ak jëfee ko jëfin gu rafet waaw kon loolu moom moom moo tënk daara ji dañ koy faral di wax sax naan devise daara ji mooy jàng jëfe laytaaye ko ay teggin waaw loolu moom mooy devise daara ji bu ngeen gisee si logo logo euh, daara ji loolu lañ fi def al ilm wal amal mal adab waaw lañ def si logo logo logo daara ji kon euh, buñ buñ si teunk daara ji si loolu la teunk wa si si si si si wa si si ñetti mbir yoy la la teunk mbollem ki fi jangé wa muy jang ak jëfé lay taay ko ay téggin wa bi ci dess itam muy nekkine bi nga xamanteni ni moom la xalé yi nekké ci daara ji ku ne xamna ni jang dafa laacc yenni euh, yenni muñ yi bu ngeen xoolee Serigne Touba Xaadimu Rasul wasiya bu mu def euh, si Maam Thierno kun kaati man da gis lam ko njëkk a wax dañ ko kun kaati man li durri wal bu saa tanal qasdan wa taalul ji la yaa mutaallim waaw lum maam lu mu ko njëkk a euh, rek mooy mu fexe bay nëbb lu ko metti waaw fexe ba nekk muñ kat dëgg fexe ba ndax daara dafa ànd ak coono ndegam yenent bi sallallahu alayhi wa sallam keroog ba Jibril di door a wàccee si moom aaya alquran keroog baat bi mu ko njëkk a wax muy iqra laataa kaa yonent bi euh, di dégg maanaam daj na lu ne daj na lu ne keroog sax nee nañu keroog ñaq na fa ñaq woo xamante nii daanaka euh, euh, sonnoon na si lool waaw sonnoon na si lool ba jàppoon ni sax dafa am leneen lu ko dikkal waaw ba demoon si suñu yaay Khadija mu nekk histoire bu yaatu waaye dañuy dañuy tënk foofu rek nga gis ni ay coono yu mitti la si daj laataa mu ñuy mu ñuy mu ñuy mu ñuy jox alquran ji suñu borom teg si loxoom niki noonu niki noonu it la amee si ñi nga xamante nii ñoo dellu si si ginnaawam di di sàkkoo xam-xamu alquran ay coonaat képp la daanaka ndax alquranul karim balaa ko nit ki mën faaw mu am fu mu jaar te sëriñ bi fexe na ba mboolem ku fi taalibe fexe naa def si yow ak muñ goo xamante ni maam taalibe boo fi seen yaa ngi jàpp ni mu ngi àdduna ak lu si biir muñ googu sëriñ bi moo moo moo moo ko fexe ba euh, nampatal ko si taalibe yi waaye fexe na it ba taalibe bu fi nekk bu si nekk amul lenn lu mu si àdduna li dal euh, euh, nit yi jamono nga xam ni dangay toll benn as bi rek commencé yàqam si sa àdduna hmm? fexe maanaam li sa moroom yi di di am nga ni kut ko kut di nga ko am fu sa morom yi di dem nga ni di nga fa dem loolu yàlla dimbali sëriñ bi ba loolu mu teel koo dindi si taalibe yi muy fekk si bayit boobu la tashtari dunya bi uxra yaa fatan waaw nga xam ni jiital na si si si si mboolem taalibe yi maanaam ñu ñu def si ñoom ak ragal yàlla ndax euh, am ndab ka Euh, ab ndabkat boo siy def dara faw nga raxas ko ba mu set waaw faaw nga raxas ko ba mu set raxas googu nag mooy fexe def si nit ki ngëm fexe def si nit ki ak ragal yàlla fexe def si nit ki ak sell waaw bi si topp itam muy euh, doxalin bi nga xamante nii si la yar taalibe yi euh, sëñ Mamadou maanaam boo fi xëyoon bis bi nga xamante ni si la xale yi di jàng boo dikkee fekk seeni toogaay ni xale yi toogee def ay sàppe ku si nek jublu fa nga wara jublu yor sa téré ouf ko si sa kaw di jang li nga xamanteni mom moy sa dars bo si noppé té sa lamine tok yaru tak say loxo dañu dem ba ñi nga xamanteni sax ñoo mag dañ leen kay dañ leen kay tagat wa manam yar ga yamul si xalé yu ak kase wa xam nga di nga dem bërëb yo xamanteni ni ah, ka ka fa gëna ka fa gëna mag rek daanaka day xawa a sàggan yi daal ji loy gëna jëm mag di gëna ami teggin loy gëna jëm mag di gëna di gëna bayyi xel sa borom loy gëna jëm mag di gëna bay xel li nga xamanteni mo nekk ci yow mi alquranul karim wa kon euh, loolu la suñu borom defal sëriñ bi ba mu réussir ko ñukay ñaan euh, bu baax mom suñu borom mu samal ñu mu samal ñuko wa samal ñuko bu baax ba nga xamanteni euh, li nyudem ñu fi gum ñu dem ba suñu ay raqaat raqaat di ko fi sakko di ko fi amé ni ñuko amé ba ñu amé ko nuko raw di ñaan suñu borom daara ji gëna sori liggéey bi gëna yaatu ndax Serigne Touba Xaadimu Rasul ku ne xam na ak ni mu meloon ak alquran boo woote woo bokk si njabootam rek am noo deselee ginnaaw alquran war nañ laa xoolaat Serigne Touba Xaadimu Rasul daan nañ wax si moom ni ndaw loo xamante ni wattu na alquran si daara ji bu bu demoon sax bay yónnee dara danaan nañ xool ku wattuwul ndax mu ngi si daara ji ñu yónni ko waaw bu dee moo fa gën a tuuti sax bu wattoo dañ ko fay bàyyi yónni ku ko mag koo xamante ni wattuwul waaw waaye it mu am leneen loo xamante ni Eh, sering bi daf ko see roy sëriñ Touba ku ne xamna ni bu beugé nga nga xemem alquranul karim bu beugé nga nga nga bëgg alquranul karim du dik nan la alquran di si wax dedet day am yon bu mu daan jaar ak magni da daan fexé ba ku fexé ku gorgol ba wattu alquran mu fexé defal la lo xamne du ko defal ken, te sering bi loolu da koo dëkkee mbokki talibé yi ni euh ab talibé buy gorgol si alquran jaral nako lu ne talibé buy gorgol si yara ki teggin jaral nako lu ne te te sëriñ Tuubaa boo xoolee si xasidaam boobu mu doon wax faza alladina xaafazu ala siyaam di xirtal mag ñi si koor boo xoolee waxu fa loo xamante ni ku wóorul duma yooyu la si amee dafa jubal rek si li nga xamante ku wóor lam si amé moom ku wóorul duma yim si amee teg na ko ne le waaye mu ngi jéem def loo xam nit ñi dinañ xemmem jaamu yàlla bob waa kay tey jii tey jii buñ ko jëlee si misaal rek bu ma bu ma fekk benn talibé mu yor orange moy orange ordinaire yi man ma yor clémentine man xamna ni clémentine mo dak orange bi mu yor bu bëggé dik niko tégal tegal sa orange bi té jël clémentine bi mun naa metti waaye damay dag tranche rek jox ko mu ñam bu yagge mu bay mu bay euh, orange am bi té te jéem ci sama clémentine bi sëriñ bi non la non la manam pédagogique bobu la yéré euh, talibé yi ba nga xamanteni ni waral suñu borom defal ko ci résultat bi ni mel wa kon ñu ñu ñu baña guddal ndax Euh, jotaay bi dañ ko bokk ak euh, mbokki duñu <laughs> taxlu ko li ma li ma lay laajaat kay mooy <laughs> euh, daara ji ci nan lay doxee maanaam fii ñi nga xam ni dañuy dañuy dañuy nekk ci daara ji ñi fiy jànge dañuy fay par weer wala nan la sëriñ bi def bay récolter li nga xam ne maanaam moom lay dundalee daara ji waa laaj nga lu am solo wax dëgg yàlla ndax ku gis daara ju mel nii gis ni mu mel ak environnement bi ndongo yi di jàngee di nga jàpp ni ñu ngi fiy fay lu cher waaye ma lay waatal si yàlla ni depuis 2002 ba suñ joon yàlla ji mosuñu fee fayeeku benn weer ak liggéey bi ngi fi gis yëpp génnul daara ji ñu si mel ni suñu ñoom bàyyi ndoxoñ yi ak suñu yaay yu tedd yii ñoo dajale seeni dërëm ak seeni ñaat dërëm fexe boole li ñu am dajale ko te bañ koo xeeb te xam ni suñu borom la ñuy liggéeyal ndax kat kuy liggéeyal suñu borom na la leer ni day yàgg rek day metti rek waaw waaye faaw suñu borom ñëw fekk si la si mhm. dañu naan suñu borom boo ko jub see moom day daw wut si la mhm. waaw adduna nag ngay jub muy gën a arrière ngay jub muy gën a arrière waaye suñu borom saa boo ko wut rek moom day daw uh, gàttandu la mhm. waaw loolu moom moo moom moo jur lii lépp waaye du du weer bu ñuy fay du du mensuel bu ñuy bu ñuy fay waaw amul si lenn loo xamante nee nañ diw mu ngi fiy jàng weer jot ñu ne ko demal sa waajur jox la fay waaw li nga fi gis si ay réalisation génnul daara ji amuñu fond politique ànduñook benn leader politique ànduñu ak itam euh, maanaam euh, ak donte euh, leader politique yi nga xamante ne ñoo nekk si gox bi yoon la ñu jël seen seen seen seen liñ leen dénk dugal si daara ndax daara it si gox bi la bokk waaye pour leeral rek ndax yenn saa yi dinañ gis li ni mel gis ak xar kanam gi ku ne xam na ni lii fond la mun nañ koo gisee neneen jàpp ni am na leader bu nekk seen ginnaaw wala am na borom doole bu nekk seen ginnaaw waaye ki ëpp ñëpp doole moo nekk suñu ginnaaw muy borom bi subhanahu wa taala kon loolu loolu moom mooy moom moo moom mooy euh, li nga xamante ne nii moom moo moom moo euh, sos daara ji moom moo melal nii daara ji waaw daara ji si si si si tànk yooyu la nekk depuis 2002 ba léegi te sëñ bi niñ ko xamee ak pas-pasam si suñu borom niñ ko xamee ak bëgg gi mu bëgg alquran ak yitte gi mu jox alquran lii du mus a changé maanaam ñàkk fay gii buñu xalaat jamono neex ba seringbi xey naan euh, euh, sëriñ bi sëriñ bi mu ngi mu ngi fayee yow mi nga xamante sax yow la jangal ci loxay bopam sëriñ Mamadou ci maa ngi lay wax li yéeme yow mi nga xamante yow la jangal ci loxay bopam xam nga dañ ni man ta'allamaka fa huwa mawlak tay ji sëriñ bi sañ na jël Baba Diallo yobbu ko ba marché ba jaay ko xam nga sama njëg du bari nak wa mu na sey jënd nagu conférence hmm? wa wala wala yu démé non ah te boba dara du ko ci fekk ndax bama ma jàngalee rek mooma moom dara du ko ci fek way yow mi nga xamanteni yow la jangal ba nga am astut. tay ji ni bo doon ñew di jappale wat ci daar ji mu nek lula war nak maam dana la defal ba defal la lo xamanteni bo doon dem fanen sax di di fa yëngu doo ko fa amé dana la defal ba defal la lo xamanteni bo doon yëngu ji fanen sax doo ko fa am wa te limay wax euh, maam ku placé wala pour pour pour wax ko ndax sank ñi ñi ngi waxtaan nga ngañ doon laaj kan mo euh, féete si daara ji man la suñu borom dogal na jamono ji sëriñ bi si suñu loxo la ko teg waaye tegin woo xamante ni wallaahi al azim mm-hmm. ah, néew na ah, kilifa gu ànd ak noonu ak ah, ndongaam wala ak nitam mm-hmm. ba pare doxeem ak moom noonu mm-hmm. da nga siy gis saa su ne njàngaleem yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ku ne xam na ni nekkoon na ak Zayd ba nit ñëpp jàppoon ni moom moo jur Zayd <laughs> saa su ne soo xoolee ay doxalinam rek da nga siy gisee njàngaleem yonent bi sallallahu alayhi wa kon ñuy dellu di di di santaat borom bi si loolu bu baax di ko gën a ñaanal suñu borom yàggal ko fi te wéral ko. sëñ Baba ci leeral gu am solo ndax euh, li bokk na ci li nga xam ni dina tax nit ñi xam dëgg-dëgg ki jàngal alxuraan coono bi muy daj euh, coono bi mu ciy daj. ba nit ñi di fi wattoo alxuraan loolu kenn ku nekk ci parents d'élèves yi xam nañ ko waaye ñi ko xamul dana war loolu ñu xam ko euh, ma lay laajaat ba tey ndax daara ji am na ci parce que dama ciy gis daara ji lu bari ci ay soxna ay jigéen ñoo xam dañuy jàng français su école tëjee maanaam su école tëj tijjee daara ji nan lay fonctionné waat membre yooyu dañuy continuer di jàng ci daara ji wala dañuy bàyyi waat ba école tëjaat ñu ñëwaat di jàng wala daara ci nan lay doxee daal ak man daal loolu xam na ma jaxal nan ngay téye élèves yi ba def ci ñoom alxuraan def ci ñoom xam-xam ak yar bi ak teggin bi ba pare ñu demaat ci école ba du tax mu te ñu loolu mu changé man daal loolu xam na ma jaaxal du ci ci daara ji daal. Euh, sëñ Dieng si loolu lu mat a leeral la jaaxal na euh, jaaxal na ñeneen sax. wa jaaxal na ñeneen ak fi jamono toll ak ak ni ni kat yi duggee si xelu doomu aadama yi jaare ko si eh, xarale yi bees yi nga xamanteni ni mo am muy réseaux sociaux yi waaye yàlla suñu borom dimbali na si daara ji ba mu mucc si loolu jaare ko si lima la wax sànq si yaru alquran gi sëriñ Touba doon yare mag ñi xam nga sànq misaal bi ma la jox sëriñ bi ñëwul bàyyi loo leen lañ nekkoon da leen a jox la ko ñu xam lii a ñu bàyyi fa <laughs> waaw waaw kon loo loo loolu rek moom mooy moom mooy nekk euh, firi bi gën a gàtt sànq si biiri wax maa ngi la si jox misaal bi ni mel waaw sëriñ bi xam na ni jamono jàpp na ndaw ñu bëri waa surtout surtout jigéen ñi ngi siy gis ñii ñëpp ñoom soxna yi euh, macha allah suñu borom dimbali na leen seen njàngum nasaraan kenn raw leen si ñoo si mën ko dul ñoom waaye it suñu borom dimbali na leen ak sellal kenn raw leen si ku yàgg si koñ bi buñ ñoom bu ñu la buñ boo leen rom maanaam bu ñu la rombee te gisoo si xar kanamu kenn si seenu colka ak seenu doxalin ngay ngay xamee ni ñii waa kër Seydina Omar lañ waaw maanaam yemul si def def nag ñu am xam-xam lañ it waaw xam nga dañ naan jigéen moom jàngam euh, euh, du soreek yu demee noonu waaye euh, loolu dama koy bàyyi nit ñi ba conférence conférence bi ngeen di ngeen ngeen benn bis toog benn conférence nga woo ma ba ma ñëw nga déema nga ni ma mbaa xam ngeen ni seen fii université la mm-hmm. waaw xam ndax yaa ngi koy fàttaliku mm-hmm. nga ma ndax xam nga ni seen fii université la mm-hmm. waaw maam lo lo moo tax man la sànq sëriñ bi suñu borom da koo dimbali mu réussir lu jafe réussir waaw mu réussir lu jafee réussir euh, mbooleem mbooleem ñi ngi ma laaj euh, muy soxna yi mbooleem ku ne si ñoom amul beneen xemmem teef si àdduna lu dul euh, yar gii leen sëriñ bi yar lii leen gënal lu ñu mënti am waa ak donte seeni moroom ñu ngi si leneen ak donte ñu ngi fréquenté si école yi ndax ku ne xam na ni Euh, yenn saa yi milieu mun na soppi nit ki mhm. nit ki mun nga defar ba mu baax ñu génn waaye ñoom li yàlla dogal mooy mhm. ñoom sax ñooy dem soppi ñeneen indi leen mhm. bëri na ñi nga xamante ni euh, rot nañ si daara ji suñ borom dogal na ni du conférence lañ fi ñëw du daayira lañ fi ñëw waaye seen i mbokki taalib maanaam ñi nga xamante ni ñoom la sëriñ bi defar si daara ji ñoo dem sa école ba wane ko fa ba ñooñu gis ni ñii lii seen morom yi nekk moo gën sa lañ nekk foofu ñooñu ànd ak ñoom ñu jàpp seen loxo indi leen ba si daara ji jox leen sëriñ bi bëri na si si ñoom ñoo xamante ni ku si nekk sa école ba nga xamanteeg sa sa sa sa xarit bu nekkoon si daara ji gis doxalinam gis ay yaram ak i teggam tegginam ak xam-xam bi sëriñ bi def si moom nga bàyyi fa lépp dikk ànd ak moom waaw kon euh, loolu la sëriñ bi def si ñoom daa fekk àdduna ñu neexal leen ko def si seen xel ni lii mooy li neex lii mooy li baax lii mooy li gën sëriñ bi ñëw gën a euh, maanaam euh, maanaam visé wu si loolu waaw maanaam bu bu ñu ko bëggee misaal dama naan sëriñ bi maam kii na cible am moom moom ratewul cible am waaw ndax ku ne xam ne ni luy yàqu lu nekk ñaareel si jigéen lay jaare yàqkat yi sax mooy occidentaux yi daanaka li ñuy yàq lu si ëpp buñ ko bëggee ñu bëggee am si réussite si jigéen lañ koy jaarale sëriñ bi nag foofu la njëkk a jaar fexe ba loolu lépp mu wan leen ni lii ay neen la da ngeen di dooni ñeneen ëllëg ñii seen waajur yi toogee uuf leen noonu ngeen di demee ba toog uuf seen i njaboot te bu boobaa bëri na li nga xamante ni ko doon réyal si seen bët bu boobaa ngeen xam ni loolu du dara waaw foofu foofu la sëriñ bi jaar ak ñoom si tënk waaw di leen ñaanal suñu borom sàmmal leen pas-pas boobu bu baax waa gën leen say dëgëral bu baax incha allah. jërëjëf euh, jërëjëf sëñ Baba ci leeral goom solo loolu ndax loolu am na solo loolu ndax euh, li ñu naan occidentaux yi dañ def léegi réseautul fikr la ñu def léegi maanaam xam nga réseautul xitaal amatul maanaam xeex ak ngànnaay par force di door nit ñi rey ak door yooyu amatul léegi réseautul fikr la ñu def dañuy dañuy xeex ak xeexu xel fa nu toog ca seen bërëb ya fa la ñu toog di xeex ak islam fii ñu nekk te dañ koy réussir mhm. léegi nag képp koo xam ne nag yow yaa ngi am taxawaay boobu am vision boobu xam ne su noonu islam yi démb la alquran waxoon rek du ñu bég ci yéen mukk mukk mukk nage da ngeen a nasaraan comme ñoom loolu alquran wax nag mhm. am na ñoo xam ne bàyyi nañ ko xel bay liggéeyal Seyduna Muhammad ci xeetam wi nga xam ne maanaam moom ñoo fi nekk mooy li mu wax léegi ni yàlla wàcce na ñoo xam ni dañ koy wattul téeréem bi di ko def ci dënn yi bokk na ci yar ak teggin yar ak jàng ñu mën am li ma wax ci benn bayit bu Seexul Xadim wax ni euh, kasaratul xilm bi xëy na alamin tuuj tuuj bi ilal aza wa tahabi ci coona ak euh, métti rek la lay yóbbu kon ñu ngi santaat bu baax Seydina Omar ci yaram ak tegginam euh, man daara ji suma la dama dama dama leen dama leen a estimé bu baax a baax ngir li ma fi gis li nga ni xale yi ku dajeek ñoom doo leen xàmmee dëgg la lay tax nga xàmmee ko rek mooy soo gestuwaatee tuuti rek da xam ne kon kii ci Seydina Omar la bawoo ngir ni muy doxee day teey day am ak dal nekkuñu jigéen ñoo xam dañuy dox di def tabaruj bokkuñu ñi nga xam dañu dañu dañu bëri jëfër-jëfër soo doxee tuuti rek boo gestuwaatee da nga xam ne kii kat am na fu mu bawoo kon fa mu bawoo am na lu ñu def ci moom loolu ñu ngi koy ñaanal yal na yàlla guddal fa mi xale la euh, ndaw la waaye teewul mi ngi dox doxinu mag ña kon yàlla na yàlla kàttanal ko xam naa damay jox sëñ ñoxo Euh, kaddu rek ci wàllu parents yi nga xam ne maanaam daara ji liggéey na ko te nga leeral ko léegi ndax li olof Njaay naan tungi ni du teew ñu nataal kon moom parent d'élève ti njabootam nekk fi te moom mu dëkk ak daara ji moom dinañu war a wax liggéey bi nga xam ne Seydina Omar mi koy liggéey ci daara ji ci xale yi waaye tamit ci ndaw ci jigéen yi nga xam ne maanaam ñu jafe jafe jafe jafe jafe liggéey la ñu ñoom ci lislaam ndax ku réussir benn jigéen réussir nga ab population benn jigéen ba fexe ba defar ko réussir nga sa réussir réussir nga benn population ba non lañ ko waxé manam réussir nga ci euh askan euh, xuma non lañ ko olof do xawale deet waye dal daal ni ku défar ben jigen réussir nga li nga mo ben population kon té lolu gis nañ ci ay jigen jigéen yoo xam ne fii ci daara ji lañ gëna ñu xam ci nak ñu bare bare ndax ñaar fuk at ak ñaar wala ñaar fuk ak ñet du ben at du ñaari at té ñu xam ci lu bare bare bari ndax suñu bëtt ñu ko bayyi ci daara ji bari wu fi tank waye bayyi nañ ko xel bu baax baax señ ñoko yow nga nek kenn ci parent d'élève yi euh, señ njaboot nek fii sëñ Baba gis nga taxawaay bi nga xam na ko yow nag yaa ñu mën a confirmer ni loolu am nga ci ay résultat yoo xam ni kenn ci sa njaboot wala kenn ci njaboot gi nga dëkkal. waaw maa ni e, li nga ma laaj de du jafe tontu ndax man xale yi nekk si daara ji yëpp samay doom lañu ñi fi wàcc arxuraan bari na macha allah li ngay wax pour ñi si réussir mooy maanaam jigéen ñi rek daanaka at mu jot kenn nekk jëwriñ ndax la koy waral ka fi nekkoon jëwriñ day dem nekk ca këram xam nga ka nekk Touba di sëy mënula la nekkati jëwriñu daara fii ndax li ñuy bëgg def fii du fi mën a nekk daanaka loolu la boo xoolee si góor ñi sëriñ Adama yàlla ko yàlla yëram te àtte ko si yërmandeem bu baax a baax te yalla defal ko fa ay xewal ak teranga bu baakha baakha baax mok baax mook Baye Youssou Diakhaté ak bepp taalibe bu fi nek ak bepp julit bu dëkk ci fi ku xam ku ma xam ak ku ma xamul ñepp rek yalla na leen yalla defal tawfiq fa ñu tëdd loolu wax deug yalla xalé yi fi réussir dafa bari lool mënu mako wàññi te lepp daara ji nak ñu ci doon jappalé timit ba tay at mu jot sayna Omar lima la wax légui gis nga conférence bi kenn mënu ko ci at mu jot mu mu décorer leen amul benn at bu ñuy def daa euh, conférence bi fii te ñu doon liggéey daara ji ba léegi seeni tur duma ko laajte chaque année ku ñëw ak ku ñëw dina la jox sa sa cadeau mm-hmm. du man mm-hmm. ñëpp mm-hmm. fii moom macha allah xale bu fi comme ni mu ko waxee xale bu fi génn rek nga xam ni fii si daara ji la jóge man nag samay waa kër moom daaw rek am na ci ko wàcc alxuraan te seet waaw mooy bàyyi laat yàlla na ko jig te doon njëg laayam jë eh, jërë jërë jërëjëf eh, sëñ Noxo moom muy suñu mag di suñu kilifa moo wax dëgg yàlla eh, doomam ji muy wax bàyyi laat maa ngi koy wax sànq ma ne ko yar gi nekk ci moom rek daf ma daf ma daf ma daf ma xaw a jëli kaw ngir li ñuy wax intellectuel dañu xam ni dañuy wax ni boo xasee ba àgg benn niveau bi ci jàng mu niveau bachelier rek déjà yow da nga li ñuy wax euh, intellectuel dugg nga niveau intellectuel waaye téewul yar gi ak teggin gi mu ngi ci moom ba tey te mënoon na ko alxu euh, français bi mënoon na ko pousser ci mu mu xam ne moom léegi am na benn niveau bu mu nekk ci niveau intellectuel waaye loolu taxul benn yoon mu changé ñu ngi koy ñaanal ak moromam yi mel ñoom moom yëpp yàlla na leen suñu borom kattanal ba li ñuy bëgg ci daara ji di ko bëgg ci fa ñuy yëngatu fële yàlla kattanal xam naa seen wax dañuy yewi ñu dalal ki nga xam ne mooy sëñ Saliou saar euh, ça fait léegi wax dëgg yàlla ñu daal di dugg nag ci li nga xam mooy waajtaayu bis bi ndax bis bi tamit dafa am solo sëñ Baba ndax it euh, euh, nit ki buy liggéey ba benn jamono nga nga nga won ko ni li nga doon liggéey at yi yëpp kaay wane ci as tuut ngir xemmem ko ñeneen wax yàlla lu am solo damay faral di wax ni ñii nga xam ni diine defuñu ngir diine li ñuy yàq ngir ci xaalis ngir seen produit boobu jar kon ñun war nañoo jaralu ko ëpp jël alal dox ko ci récompenser ci nga xam ne maanaam ñooy jàng ci ñooy ñooy liggéey ci alxuraan ñoo nekk ci daara ji ngir ñeneen ñi nga xam ne defuñu noonu nga yokkaat leen parce que parents yi nga xam ne defuñu noonu nga yokkaat leen parce que loolu lu am solo la xam naa dañuy dalal jëwriñ di ko jox mu nuyoo sëñ saaliw di la wax ñi la ñu ngi lay ndokkeel bu baax ci taxawaay bi nga xam ni am nga ko ci bërëb bi ci daara ji waye taxaw ko ci kam nga xam moy sayyidna umar muy lo xamni taxaway bu bu bu rafet la ñu ngi lay ñaanal yàlla na yàlla suñu borom woyofal yeen bi kon sëñ bi ñu ngi jup ci bis bi nga xamni manam moy bisu dara ji lan moy sababu ñu taxawal bis bi a'udhu billahi minash shaitanir rajim wa inni a'udhu bika wa dhurriyyataha minash shaitanir rajim rabbi a'udhu bika min hamazati همضات wa a'udhu bika rabbi an yahduruni saddid lisani nawir janani safi amaani wa zid baraay asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuhu ñu ngi nuyu téléspectateurs yi nga xam ni ñooy seetaan émission bi nga xam ni mooy ëttu xasida si suñu baay di ko def muy sëñ Dieng Sy muy waa télévision Thiès TV ñu ngi ñu ngi nuyu ñëpp te di leen ziyaaraat bu baax di nuyu itam suñu naataango sëñ Abdou Aziz mi nga xam ni moom la yàlla na natoo mu nekk ci daara ji di jàngal xale yi solo lépp tegu ci eh, ndigalu sëriñ bi ñu ngi ziyaaraat ñëpp te di leen joxaat seen wàccuwaay di nuyu ak sant ki nga xam ni suñu toogee fii bay wax baatu arab wala ci alquran yàlla suñu borom subhaanahu wa taala jëmmam jooju la ko jaarale ba ñu mën a xam lenn ci alquran ba mën a nàmpatal ci leeru yonent bi sallallahu alayhi muy suñu sëriñ Seydina Omar Jaxate di ko ñaanal suñu borom subhaanahu wa mu yàggal ko suñu kanam may ko ak wér ba lepp li nga xamni bëgg nako ci liggéey bi nga xamni mom la taw di liggéeyal islam di liggéeyal Serigne Touba qadim rasoul yalla defal ko ci ndawam lu kawé ndort ci barkeb serigne Touba euh, ñu ngi sant itam bu baax euh groupe télévision bi nga xamni ni ñoo dagg seen yitte jëpp euh, ñew defe émission bi nga xamni mom lañuy tuddé ñuy khassida ñew défé ko ci daara ji ndax Euh, kóllëre ak daara ji ndax kóllëre ak sëriñ bi waaye tamit ñuy waaj bis bu màgg muy bisu alquran bi nga xam ni sëriñ bi da koy def chaque année ci buntu daara ji loole nag ni ñu ko laajee rek léegi rek muy lan moo sabab bis bi ak lan mooy doxinu bis bi ak lan mooy tolluwaay bis bi bis bi bu ñu xoolee day mel ni sëriñ bi daa yar ndongo yi ci daara ji yarin woo xam ni yarin wu am solo la muy ñu fexe jàng diine ba xam ko fexe euh, euh, fa seeni itam yar leen ci euh, tarbiya seeni jëmm am ñu am yar doon ñu amu teggin mu gis ni loolu war na ko mën a yaatal ba loolee nga xam ne def na ko ci mbokk taalibe yi muy yar leen xamal leen diine jàng leen alquran ba kenn ku si nekk mën a jàngale wala ñi si ëpp loole mu ni jar na mu samp ab bis boo xam ne bi ci cant lay doon bisu cant yitam waaye bisu wane li nga xam ne moom la def si mbokk taalibe yi nga xam ni xadis yeeg euh, xasida yi ñu fiy lépp day jublu ak cant waaye jublu ak wane li nga xam ni moom la ko yàlla tawféexale mu def ko ci euh, mbokki taalibe yi mooy li nga xam ne moom la fi doon sëñ du doon leeral sànk mooy doxinu daara ji lay jàngale maanaam ba ku ñëw ci bisu conférence gi rek boo gisee xadis yi nga xam ne moom la xare yi di tari ak njàngale mi ak eh, yarin gi nga xam ne moom la xale yi toogee nga mën a xemmem liggéey boobu ba tàbbi ci loolee bokk na ci taxawaayu bis bi waaye tamit bokk na ci sant suñu borom subhaanahu wa taala ci tawféexal gi mu ko tawféexale ba mu wootee am ñu ko wuy si nga xam ni suñu yaay daara yi bàyyi nañ seeni njaboot ñu ñëw jokk ci liggéey bi ba pare ànde moom loolee tax na itam bis bi mooy ni ko ni sëñ tubaa boo xoolee sëñ tubaa ni nga xamee ne deme deme woon na ko ci géej gi bi mu ñibbisee bay sant euh, tawféex gi nga xam ne suñu borom defal na ko ci mbokk taalibe yi defal na ko ci murit gi ba amul nu mu ko mën a xiyaasee ci am xel mu ni kaay leen sant la ma yàlla loolu itam bi tamit day tegtale ab sant ndax boo xoolee dañoo baaxoo euh, gis conférence daanaka 9 ngay dem ca Tariba suñu suñu pare xëy na midi ñu pose ku ne mën a dem añi sa kër waaw waaye boo xoolee daar yi doxewut noonu day mel ni bisu cant la waaye bisu alxuraan la waaye bisu conférence la nga xam ni gannaaw si bi nga xamee ni sëriñ bi jàpp na bis bi dañuy dañuy def di waxtaan ci ay bernde yoo xam ni dinañ ko mën a laytaayalee bis bi nga xam ni eh, day am ndékki day am añ day am reer nga xam ni kon eh, ak cant la daanaka mm-hmm. waaw waaye tamit li muy li cant gi di rëy rëy rëy boo xoolee li ko wundu mooy alxuraan kepp mm-hmm. mm-hmm. waaw maanaam sëñ bi yàlla taw fexeele gi mu ko may gi mu mun a tàggat doomu aadama yi ba mën a def si ñoom alxuraan mu ni loolee liggéey bu rëy la naa ko wane ci mbedd mi ba ñëpp gis ko ba sañ woo ay tele ngir ñëw ñu ñu filmer loolu di ko génne si mu génne si internet bi nga xam ne kenn ku ne dina si jot loolee mu do mu mel ni lu lu lottu ci sant ko moom dong mu daal di woo mbokki taalibe yi tamit cantale canta ni kaa leen santale ma sunu borom subhaanahu ci alquran ji ma may ma mën ci loolu waaye tamit ngeen wane liggéeyal yàlla gi gi nga xam ne def naa ko ci yéen ndax sëñ Tuubaa dañ daa faral di wax ni dadaa wax mbokki taalibe yi nañ may xamee ci yéen maanaam tey jii nii yaakaar naa koo santeel ci mbedd mi bu nekkee ci daara Seydina Omar bu fekkee xam nga sëñ bi rek da nga xam ni kii taalibeem la waaw kon loolee day mel ni eh, sëñ baaba li mu wax sànq ni yar gi ak teggin gi nga xam ni moom la sëriñ bi def si yow loolee kenn nattable wu ko kon loole moo sababu bis bi maanaam bis bi ak sant la waaye wane njàngaleem sëñ Tuubaa wane njàngaleem yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci képp koo xam ne ñëw nga si bis bi rek di ci mën a soññeeku nga xam ni da da xadis dañ koy wax si arab maanaam waaye dañ koy saraa ci wolof ba mu leer naññ nga xam ni ku fa ñëw rek dooni kii doon wax xadis bi la nga doon wax kon kon loolu jubluwaay la itam ci bisu conférence bi kon ñu ngi tëj foofu kàddu yi di joxaat suñu bàyyi rek uh, jërëjëf sëñ Saliou ci leeral gu am solo googu xam naa li ñu desee bariwul xam naa dañuy dugg ci li nga xam mooy wàllu organisation bis bi Euh, ban heure lay tàmbali ak it euh, niñ ko fas yéene doxale ci wàllu tari bi ak wàllu bernde euh, ndax ren dafa mel ni am na benn surprise boo xam ni sëñ bi waajal na ko ki nga xam mooy waajuru ndongo yi. Mm-hmm. waaw ni nga ko waxee rek bis bi moom dafa am organisation boo xam ni bu mucc ayib la ndax day mel ni suba gi ci 9 lay tàmbali waaye boo xoolee tàmbali gi yëpp. ubbi alqur ubbi teg lay doon nga xam ni xale yi euh, bu ñu bu ñu génnee ci 9h ci bis bi dinañ tàmbalem tari tari alquran ji nga xam ni 9h wala 10h lu mu gàtt gàtt dina fekk yaay yi génn nga xam ne dañ ñëpp dinañ génn si baas bi ngir ñu mën a tàmbali liggéey bi maanaam tàmbali alquran nag tari alquran ji daal di tàmbali bu ko defee buñ demee ba 2h. ñu pause daal di julli diggante boobu tamit mën nañ fa doxal ay tari ba waxtu añ jot trois heures nga xam ne boobu dañuy pause dem euh, xewlu ji suñu suñu noppee diggante tàkkusaan la ñuy génnaat ci baas bi léegi waxtu woowu nag xëy na dina amaat ak tari waaye li si ëpp ay njàngale la yoo xam ni sëriñ bi Euh, jox na ko xale yi ngir ñu soññ ko ndax day mel ni suba gi ñu si ëpp ci ci ci yaay yi du ñu nekk si baas bi te am na njàngale yu am solo yoo xam ne sëriñ bi waajal na ko te day mel ni ci waxtu woowu nga xam ne waxtu tàkkusaan bi bu ñu bu ñu jógee si waañ bi waajur yi ñu si bari dañu mën a nekkaat ci baas bi waxtu yooyu si la njàngale me ji di gën a amee solo ngir ñu mën koo teewlu waaye tamit bu ñu fàtte ni bis bi bisu xasida la ndax sëriñ bi waaj na ci xasida yu am solo yoo xam ni mbokk taalibe yi saa su ne ñu ngi xey euh, di diko répéter wa kon day melni bisu qasida la nga xamni ah, bisu alquran la way bisu qasida la mi ngi melni suba gi liko dalé ci 9h ba takusan. alquran ak xalé ni ñi nga xam mom loolu leen serigne bi jangal mom lañuy tari wa liko dalé ba waxtu wo 18h jëm kaw li ci melni jangalem serigne touba ci wasiya yi nga xamni bindon nako bako fi ak ñangalam yoonte bi sallallahu alayhi wasallam ci hadith xasida yi nga xam ne sëriñ bi tëgg na ko taggee ko yonent bi sallallahu alayhi julli si ci moom euh, sant ci yàlla suñu borom subhaanahu wa taala mu mel day am ñetti kuréel yoo xam ni ñu ngi ci daara ji muy kuréel 1 ak kuréel 2 ak kuréel 3 loole li nga xam ne ñooñu ko doon ñoo ko doon répété ci wàccaayu bis bi da dañ ko fa jàng waaye tamit danañ invité ay yeneen kuréel xasida yoo xam ni kóllëreel ak daara ji kóllëreel ak sëriñ bi ñoom tamit danañ teew ci bis bi waaw bis bi daal boo boo seetloo day mel ni bisu alxuraan la ak xasida waaw day mel ni kon jotaay bi nga xam ni moom moom moom lañ toogee muy émission ëttu xasida yi day mel ni eh, loole wundu na ko mooy alxuraan ak xasida ndax boo xoolee njàngalem Sëñ Tuubaa eh, waaw génnul ñaar yooyu <laughs> alxuraan ak xasida waaw ndax Sëriñ Tuubaa sax wax nañ malaka ni eh, quraana tamlikan yadum bi annani xillun wa qibbun wa qadim kon niko seigne Abdou waxe sank kep ko xamne yaangi wote ñangalem seigne touba taw dundulo te day melni wacc euh, nga la nga la nga ngay def wa sànni nga ko kon nak seigne bi deggal na lolu manam jox na yitte alxuraan ji ba ñepp xam ko waye xasida yi desul gannaaw ben yoon kon nak day melni ni bis bi daal euh, ci gatal euh, bisu alxuraan la khasida moy ak cant la moy wane la seigne touba yent bi salaam salaam yitte ji nga taxoon suñ borom wàcce ko ci jaami mooy defar leen ñu nekk ay dëgg-dëgg jullit nga xam ni dañuy nekk ay ay ay nit ñu ragal yàlla loole moo sabab bis bi mooy képp ku fi ñëw jële fi loo xam ne attaqwallah nga xam ni mooy dëgg dëgg dëgg dëgg yóbbal nga xam di ko fi jëlee nga xam ni xale bu jël rek da nga xam ni yow lay waxal yow mag mi boo nekkee woon ci lu safaanu di nga di nga daal di jàjjiku ba nga xam ne boo génnee ci baas bi di nga di nga di nga am ab yóbbal kon day mel ni bis bi daal ci gàttal euh, loolu mooy sabab bi ñu ngi tuub baax wasalaamaaleykum wa rahmatullah mhm. waaw di sant bu baax ak nuyu bu baax ak jaajëfal sëriñ bi te di ko ñaanal suñu borom subhanahu wa taala liggéey bi nga xam ni suñu borom dëkk na ko ci ay loxoom yàlla na ko si yàlla defal lu kawe njortam tey woo ñëpp nag képp koo xam ne yaa ngi seetaan émission bi wala yaa eh, maanaam kàddu gi jote na ci yow ñu ngi lay woo ci bis bi te xam ne bisu alquran la bisu diine la bisu yaatal liggéeyal islaam la nga xam ne woo nañ ci ñëpp bàyyiwuñ kenn murit tijaan xaadir layen woo nañ ci umma islamique bi yëpp maanaam nga xam ni eh, ku ko yëg rek maanaam woonal la ci kon ñu ngi jéggulaat bu baax si kàddu yi di sant suñu bàyyi seen jeen si te di ko joxaat wàccuwaayam bu baax te te tey kontaan bu baax ci li nga xam ne defal nañu ko ndax mel na ni at yi weesu yëpp ñoom ñoo ñuy couvrir bis bi ñoom ñoo ñuy couvrir bis bi maanaam yitte ji ñu ciy def dafa kawe suñu jort waaye ren nag ñu ñu bàyyi seen lépp ñëw àndee koog ñu def ci defee fi émission loolee mun ñu leen koo fay kon ñu ngi leen ciy sant bu baax di di ñaan di leen ñaanal yàlla yokk seen tale bi. maam yalla taxaw leen ba fi ngeen bëgg fi fépp télé bu baax fu mu yegg rek yalla na fa seen télé bi yegg ci barkeb touba assalamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatu jërëjëf euh, euh, jëwriñ euh, seigne saliw sar ñu ngi lay sant baax seigne Baba xamna sax ben kàddu rek inshallah do ay 30 secondes rek ñu taggo ndax waxtu jul wi na fi wa di delu di santat borom bi rek subhanahu wa taala si tawfiq gi ñu defal yalla dimbali ñu wommatel ñu jëm ju tedd ju yittewoo alquran yàlla dimbali suñuy waajur ba ñu xam liggéeyam jooju ba pare ëpp si ñëpp passeef di ñaan suñu borom tawféex googu mu ñu defal yàlla nañu ko sàmmal di tëjee fi jëwrin tëjee rek muy dellu di leen sant bu baax di ko jiite di ko tàmbalee si kilifa ga ba si ku si gën a féete ndaw di dellu di leen sant bu baax seen taxawaay ku ne xamna ni bis bi at bu jot ngeen taxawé ci nu raw na ngeen ci daan taxawé wa ñu ngi koy défé nak euh, le 13 inshallah allah ñu ngi koy def le 13 euh, octobre bi ñu dëgmal daanaka dimanche suba bi bu délu sé le 13 octobre inshallah allah ñu ngi koy amale fi ci buntu daara ji wa ñu ngi koy amale fi ci buntu daara ji comme léral yi ci jëwriñ euh, wax yépp rek nonu la bis bi di tëddee Wa di délu di santat borom bi di gëna ñaanal sëriñ bi itam ndax dadi lo xamanteni ni bu la ko suñu borom defalee du sa katan du sa man man du lenn loko defal ba defal lako ko kañ da nga bok ci ñu mëna dimbali ba boole la ak jëm yu mel non kon nak di ñaanal suñu borom mu yag fi lool wéral ko lool ba ñaneen gëna jariñu ci jëmam ci ndax euh, daara ji fi mu tollu ni am nañ ci yeneen gis-gis te it am amna fu ko sëriñ bi bëgga yeggalé te gëm nañ ni dinañ ko fa dina ko fa yeggalé ndax suñu borom nangul na ligéyam wa kon euh, ñukay gëna gën wat waat xel wa gox bi yépp di ko gën a waat xel euh, mboolem ñu féetewoo fii si cité Senghor ba li ko wër waa di leen wax ni daara ji tëjaluñ ko kenn waa daara ji daara yi ñëpp la képp koo xamante ni bëgg nga sa doom euh, am yaru diine yaru lislaam am itam xam-xam am alquranul karim si dënnam képp ku bëgg sa doom am loolu rek ubbil nañ la suñu bunt yëpp waa comme niñ ko waxee itam laajuñu si kenn benn dërëm boo xamante ni ñu ngi koy fayeku kenn amul amul inscription amul mensualité lepp sëriñ bi da ko def ngir jëmmé borom bi subhanahu wa taala kon lool ñu ci dellu di ci wowaat ñëpp euh, di wax ni ñëpp xañ nañ ci liggéey bi euh, di tejje fofu kaddu di ñaan suñu borom yobbu ñu ak jamm ci euh, bis ba ak jàmm incha allah alaykum wa rahmatullahi taala wa wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh jerejeuf seigne Baba sama jarbaat la moom sama jarbatu bop la mom momit mo nek xale bu yaru. démb maa ngi naan ko sëñ bi chaque année dafay yónni délégation bu ñëw dima ko yëgal nee ko ren jarul muy jël jël nee ko yëg naa bis bi euh, te loolu wax dëgg yàlla mbaaxam la rek ak euh, euh, yaram gu mu am te loolu wax dëgg yàlla mooy cëram mm-hmm. ndax ku alxuraan nekk ci yow te joxe woo cër bi nga war a joxe rek day mel ni alxuraan boobu nekkul ci yow mm-hmm. gis nañ ko yëg nañ ko bu baax a baax mm-hmm. dafa benn guddi boo xam ne lu ma rëm lu ma def marque la ci moom benn guddi xaw ma yenn àndoon xaw ma ko mu ñëw kër ga wax dëgg yàlla bis boobu du ko fàtte mu xaaju guddi guddi guddi na booba mu yor ay téere di mu ko indil waaw ma ma ne ko nag yow boo toogoon woo ma li may li may doon sa mag soo toogoon woo damay ñëw wuy si la ndax xam naa ci li nga nekk mhm. teyit ngant am na bu baax a baax wax dëgg yàlla mu am ci kontante bu baax a baax ñu koy ñaanal liggéey bi muy liggéeyal islaam yàlla na ko suñu borom kàttanal ba mu fekk lépp bay njaboot di ko aw ci liggéey bi ci barke alquran barke Cheikhul Khadim euh, nii la leen Thiès TV indile woon fii tey seen émission ëtt xasida yi fii ci daara yi Seydina Omar ñu nekk ci waajtaay bi nga xam ne mooy bis bi nga xam ne mooy bis bisu alquran waaye nekk bisu xasida waaye nekk bisu xam-xam boo xam ni ku fi ñëw di nga am lu yóbbaale incha allahu rabi ñu ko jox rendez vous ñëpp le 13 lay doon muy dimanche bii di ñëw bu suba bi dimanche bii bu dellusee le 13 fii ci robinet. maam eh, robinet xaadim fi mu nekkoon foofu lañ ko defee incha allah di ci wooyu ñëpp wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu